léegi nii ak ki nga xam ne nii euh, mooy euh, Mamadou Ndiaye waxtaanee beneen Mamadou. effectivement Mamadou bi ñuy waxtaanee mi ngi tudd Mamadou Ali Ndiaye moom dañ ko nominé kimono d'or kimono mooy yi nga xamante moom la ñuy. Ah, euh, ko jox ko ko jox di association des de la grande nuit des arts martiaux bi nga xamante ne amal nañ ko ci week bee ñu génn fële ci stadium Marius Ndiaye en tout cas Mamadou na fi ki nga xamante ni mooy champion du monde def na ko ak Mariane Siva

bi ma duggee fii nag sànq sama yaram dafa daw parce que dama fi fekk ay nit ñoo xam ne tey ñii ñoo ma dugal karaté ñii ñoo ma yar tey wax dëgg yàlla ñu teral ma ci kanamu ñëpp mënu ma def naa tuddul kontaan tey kontaan naa et je suis très fier d'être là et pour te dire que nag lépp loo xam ne rek sacrifice la bu ma doon def ci karaté rek du doon loo xamante ni lu may rëccu tey la parce que je suis très content du ma def dul rek xale yi di leen delloo njukkal di leen féliciter parce que xale yi ku leen jàppale yaakaar naa ni champion yi mel ni man mën nañ ci benn wala ñaar parce que xale yi aussi wax dëgg yàlla ils sont capables donc nag aussi ñuy féliciter aussi l'équipe sortante qui Mamadou Sall qui était avant l'ancien président ak les la nouvelle équipe qui est là pour te dire que ni mbir mi yëf yi mbooloo la te mbooloo mooy doole quartier bi kenn moomu ko bu fekkente ni booloowuñu ñi nga xamante ni seen seen seen àq ñu jox leen ko ñi nga xam ni tey ñoom ñoo tax karaté bi doon li mu doon tey ñu boole leen ci mbirum karaté je pense que ni ça serait dommage pour le karaté te karaté bi mérité wul loolu nañu booloo nekk benn dem seet anciens yi toog waxtaan ak ñoom ñu wan leen yoon et loolu c'est important pour le karaté du Mamadou Ali Ndiaye euh, champion du monde euh, karaté ñu sargal ko noonu Mm-hmm. on ne demande que ça. oui effectivement moom surtout ci li mu def euh, ci wàllu karaté moom mi nga xamante ni euh, def na fi jaloore nekk champion du monde ci atum 2000 waaye li ci gën am solo mooy it euh, bëggoon na fi nekk candidat ci élection présidence su fédération sénégalaise bu karaté candidat na yéenay diriger li nga xamante ni mooy fédération waaye mujjul antu mais li ci gën a am solo mooy ci atum 2017 bi Pape Cheikh li nga xamante ni mooy wàllu karaté bokk na ci ñi nga xamante ni ci wàllu sport fësal nañ bu baax seen taxawaay ndaxte ci championnat d'Afrique bi nga xam ne amoon nañ ko fële ca Yaoundé ci weeru juin bi ñu génn euh, Sénégal am na ci ay titre champion vice champion euh, vice champion d'Afrique ak ki nga xamante ne mooy Abdourahmane Mirador Sène ak ki ak médaille yu am solo maanaam six médailles de bronze am nañ ko fo di wane ni euh, ci atum bi ci wàllu sport gannaaw football bi lii di arts martiaux tamit am nañ ci taxawaay bu am solo Pape Cheikh. mu ngoog donc ñu ngi koy féliciter moom Mamadou Ali Ndiaye qui était donc champion du monde de karaté balaa ñu lay bay on en profite juste pour fàttaliku wala fàttaliku euh, démb lañ doon amal deuxième tour élection présidentielle euh, yu euh, Libéria. Mhm. alors particularité élection yi nag mooy taxawaayu ki fi nekkoon Ballon d'or 1995 si je ne me trompe muy Georges Weah mhm. alors de footballeur à président est-ce que loolu mën na nekk de toute façon ñu ngi xaar résultat yi mais démb en tout cas lañ doon amal deuxième tour yi. démb lañ doon amal deuxième tour bi ñaari weer gannaaw bi nga xamante amal nañu premier tour yi en tout cas. ki nga xamante ni mooy euh, mën nañ jàpp ni ñëpp mën nañ jàppani mooy euh, favori bi di Mr George mi ñu koy wax euh, George Weah nekk candidat deuxième tour ci élection présidentielle yu am fële ca Libéria en tout cas démb gis nañ scrutin bu bu ànd ak dal loolu la seetlu boobu lañ ci am scrutin bu ànd ak dal yi nga xamante ni mooy plus de 2 millions de Libériens ñoom ñëpp dem nañ ci urne yi voté li nga xamante ni tànn fa seeni tànn ki nga xamante ne moo di entre George Weah ak ki nga xam ne mooy Joseph Boaké moom mi nga xam nekk na fa vice président lu toll ci 12 ans. en tout cas ñoom ñaar euh, ñooy xëccoo li nga xam ne mooy présidence mais li ci gën a am solo wax nga ko léegi mooy George Weah mi nga xamante ni ballon d'or la ci atum euh, am taxawaay bu am solo ci wàllu football af fii ci Afrique surtout wane euh, jaloorem bu baax fële ci Europe ak club yi ci mel ne Milan yooyu mais nag li changement de casquette yi nga xam ne moom la war mën a fas yéene mën a def en tout cas favori yi ñu ngi xalaat ni George Euh, en tout cas ci monde mu nekk mu nar a nekk satisfaction ci monde ñi nga xam ne sportif yi monde footballeur yi ñi nga xamante ni am nañ ci tàgg euh, taxawaay bu am solo en tout cas euh, résultat yi ñu ko fas yéene xaar ci du yàgg dara ci bés yi ñu gën ñu xam Libéria kan moo ci war a gagné ci diggante George Weah ak kii di Joseph Boaké. voilà donc est-ce que George Weah dina nekk président bu Libéria on ne sait pas dina ci wuutu ñoom ñaar ko ko ci nekk ki nga xam ne ni mooy Ellen Johnson Sirleaf jigéen la moo jiite woon dëkk boobule ci lu toll ci douze mhm.

français nekk chimiste nekk it koo xamante ku am taxawaay la ci wàllu microbiologie euh, bis ni tey àddina wante ci atum mi ngi génn àddina ci septembre euh, ki nga xamante mooy Louis Pasteur wax naa ko léegi euh, buñ ko tuddee rek sunu xel yëpp day dem ci li nga xam ne vaccin bi nga xam ne créé na ko. Mm. di vaccin contre la rage. voilà fii tuddee nañu ko benn institut bu mag. muy mm-hmm. institut Pasteur et que voilà xale yi dañu koy jàng école donc c'est bon

xale yi bëgg nañu ko torop toutes ces chansons euh, euh sont chantées par les enfants mhm. surtout cette belle chanson que j'apprécie beaucoup moi personnellement euh, muy euh, je suis français histoire baa ngi juddoo ci diggante famille Le Pen Marine Le Pen qui accompagne waa famille Le Pen moom itam bi mu wooyee daf leen xaw a tontu ne leen je suis français je pense qu'on peut écouter un bout de cette chanson puisque moom sama doomu baay la Alpha Diallo mhm. muy turam dëgg ñu gën ko xam ci turu Black

Rachfa Diallo wala euh, Black M tey la anniversaire am donc on s'est dit pourquoi pas euh, euh, vous proposer une de ses chansons mu ngi wax ak Marion Marianne quelque chose comme sa voilà Marion Marianne Marion Marianne je suis Marianne pas Marianne Pata bu télévision Futur Média mais l'autre Marianne particularité France ou symbole bu France il chante bien on l'aime beaucoup il a des origines africaines mu ngi bàyyeekoo ay maamam ñu ngi jóge diggante Labé <laughs> <laughs> ah la France de mon enfance ah la France ah la France quand tu nous impressionnes France et ses bistrots la France et ses cafés la France et ses gares la France et ses bus heureusement que nous ne sommes pas impressionnés par la France nous qui sommes là voilà donc on aime M quand même et tey la anniversaire am il est né merci en tout cas euh, pour ces euh, nga ñu jox ñu jaaree fa xam peut-être lu ñu xamul woon entre Libéria euh, anniversaire Louis Pasteur ak ki nga xam ne ni mooy Black M sànq